patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen Boutique Solution ñoo leen di may seen émission Taku Show seen émission Taku Show dellu soit ci kàttanu yàlla ci seen télévision Walfadjri la voix des sans voix sunu site bile di Walfnet ak yeneen différentes plateformes yu Walfadjri ñu fas yéene ci ànd ak yéen ci eh, Taku Show Taku Show nag tey ci eh, alxames ji ni nu koy amale saa su nekk tey eh, Omar Bun Xatab dina ñu ubbeek moom kaddu mag ñi mu indi lenn ci kaddu Sidi Lamine ñas yoo xamante ne bàyyi woon nag fi li may wax géej la li mu wax yëpp di nga ci tànk ba sonn actualité actualité lay doon du jeex pajum cosaan alaaji Sa Ndiogou Mbengue seq waxtaan ak Cheikh Bara Ndiaye boroom def gis ñu teg ci victime du net son bu jóob mooy ki koy amal ñu yëkkati bi li jotaay Amar Bun Xataab maa ngi lay nuyu di la di la ziar bu baax ajaratu di la nuyu verte bi rafet na macha allah. merci beaucoup di la nuyu bu baax di nuyu ñëpp am mbégte teewaat fii ci ndimbalu suñ borom ak kattanam di sant yàlla bu baax. Mhm. ci li mu ñu may kattan ak sago ak wéruk mën a teew. Mhm. yàlla na yàgg. amiin euh, di nuyu El Hadj Ndiogou Mbengue saa saa mhm. eh, ñaw bi rafet na. di ko nuyu bu baax bi euh, taalibi suñu du sëriñ Abdoulaye Mbacke. ñu koy ziar baax di nuyu euh, Sonia bu Diop le ministre le ministre des finances ñu koy nuyu bu baax. ñun sama mooy suñu xarit de ñun seq ñu ak yow dara sama <laughs> lan amal affaire Diourouwa solution ah di ko di ko di la nuyu di la ñaanal jàmm di la ziar bu baax a baax di nuyu sama xarit Cheikh Bara Ndiaye borom def gis di ko nuyu bu baax a baax ah. Cheikh Bara mhm. d'abord di ko di ko félicité. waaw ah, comme neexul jot bari na ñu ma jot téléphone di ko félicité. mënuma mhm. leen tudd nag mais seen yóbbante egg na ci élection yeeg euh, Cheikh Bara Ndiaye di ko masawu. Mhm. bari na daal ñu ko félicité ci ñoo xam ne mën nañ ma jot wala ñooy dajeel. ko ci dajal mun la Cheikh Bara eh, di nuyu kat yi di nuyu waa kër ga yëpp ca Tëngéej di nuyu Cheikh Samba di nuyu aussi tamit sëñ si tey bu ñas ca Géejawaay di nuyu waa géej Géejawaay Kër Masaar yëpp di leen ziar comme ni ko waxee rek El Hadj Seydou Lamine Niass eh, tey li ñuy indiwaat ci yóbbal boo xam ne da ko yóbbante woon suñu président yi eh, Diomaye nag avant ñu koy fal ci interview bi mu def wal ri mu jëloon exemple ci wax jooju quoi. waaw ci ni daal wax la joo xam ne yóbbal la aussi boo xam ne moom da koy bàyyi xel. ci facture yaag yooyu tool yaag yooyu. waaw ci yooyu waaw loo tax euh, vidéo bu viral la quoi même Walf sax ñu koy reprendre lu bari moo tax tey ñu indiwaat ko rek euh, pour mun ko fàttali nit ñi kon ci kanam incha allah ñu fas yéene soobu ci kàddu mag ñi. d'accord am na mhm. solo. Euh, son yi bu Diop maa ngi lay nuyu di la ziar sa verre rafet na. maa ngi lay fay ajaratu déedéet macha allah macha allah. maa ngi lay fay di la ñaanal yàlla jàmm di am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen fii ci Walfadjri la voix de sans voix. Mhm. gërëm ko moom xaritu Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Ahad Mbacke gërëm ñilaan bu baax baax di wax ni ko euh, bu ci jàppul woon dana ñaaw. mu koy nuyu baax ñuy xale yi ci kër ga nuyu Omar bun Xattaab Guèye de Kër Masar. ñaanal bu baax a baax di ko ñaanal yàlla jàmm di la jaajëfal bu baax a baax jaayow macha allah <laughs> tabaarkàlla tabaarkàlla tey nag gis nga Cheikh bi fi mu génne maanaam sëñ Baara dafa ñëw ma xool ko sama xel dem ci sëñ Moustapha si njiital Moustarchidina wala Moustarchidaat bi ma gisee kol kol semis bi ci biir mu teg grand bi wax dëgg yàlla sama xel dafa dem ci sëriñ Moustapha si ñoo koy nuyu bu baax a baax a baax a baax <laughs> nga xool mbaa xam ne mi sa xel dem ci sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke Hmm? lii Sénégal kii Sénégal. waaw mooy Sénégal waaw mooy Sénégal. Ah, macha allah di wax ni daal noonu la demee sëñ fa sëñ Baara jërëjëf. di wax ni tey ci kanam tuuti di lañ dem ci mën nag ñi daan laa gërëm nekkal fii di wëndeelu une loo gis rek ñaaw ca njot. waaw sa koñ de moom <laughs> mais Assane ab ragal lañ gis Assane ni bul taxaw xam nga Assane dama foogoon di gërëyee la sëñ Baara dañoo yem ci benn action bu doy waar. ci benn fu lëndëm ci benn jigéen bu fa sànni dara ma ne ko Assane est ce que duñ retourné xool lii mu ni ma bu ñu demee rek police ni jalañ ci suñu jël ñu ma ne ko mais xam nañ ñu daw ba rëcc ci tuuti tooñ yu métti ñi tooñ Pape Ndiaye mi ni woon ñu ay élection du fi am ci ci nawet fii ak nawet bi Papa Ndiaye bu Walfadjri ah. euh, tooñ yi ñu koy tooñ ci internet bi dinaa ci ñëw Serigne Cheikh Thioro Mbacké moom tamit dafa mel ni victime la ci internet bi ak euh, euh, waa GIGN ñi source a bind tey ni ñoom ñoo yor euh, sécurité Ousmane Sonko tàqali ko nag ay garde corps am dafa mel ni El Malick indi na ci ay tontu lii lañ fas yéene waxtaanee ci victime di net. ayca ci kanam tuuti lay doon alaaji maa ngi lay nuyu taalibe sëñ Sidi xarit sëñ Sidi ziar naa la. Adja maa ngi lay fay. yaa ngi rëy rek kontaan ci yow. voilà di dem ba Touba nuyu xarit général des mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi tànn ak wér. amiin waaye di nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdoulahat Mbacke. ñu koy ñaanal Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ziar wér nuyu bu baax sëriñ xaadim ne ci kër gaa njaboot ga yëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu sëñ Abdou Karim Mbàkke borom Makaarimul Axlaaq eh, di nuyu maman Dieynaba Fall kooku sunu maman la waaye di nuyu monsieur Lo kooku sunu tonton la di nuyu Omar bun Xataab macha allah di am ci moom mbégte kontaante eh, ñi ngi koy ziar bu wér di nuyu Cheikh Baara Cheikh Baara sànq eh, bi ñu ñëwee sooy bu bi mu ko njëkkee xool ci suuf bu loolu laa doon ree quoi sooy bu dalee ko lii communication la wala li Cheikh Bara sol. Cheikh Bara lim sol dafa rafet. loolu ba mais sooy bi da koo laaj da ko doon dañ la ko digal. wala communication wala communication. non loolu couleur bi lay wax wala lan. non couleur bi lay wax rek. man nag déggoo ko. sëñ bi man sooy bi doonoo yëgoo. man ko yaa ngi raam hommage Macky Sall. <laughs> boobu laa ko jóg. waaw mais teewul daal ñun waxuñu ay couleur. mais kaw gi la ñuy wax. yàlla wax ci lii. léegi yow kii ñu naan lu mu góorgóorloo bi ko bi ko bi ko loolu loolu moo tax bi ñu ñëwaatee fii sooy bu di expliqué waat ay ree jàpp ba quoi ba xam ne ah, vraiment communication mooy euh, yéeg ci antenne bi ak euh, lii sooy di wax ci suuf vraiment ci suuf moom loolu xeer la parce que naa ko moom lii communication am na fu dëkk bi toll waaw saa yu solo da ngay xam ne am na lu xew. dara macha allah. buy dem police Assane mos dem police sol lu ñuul. am na lu xew am na lu tax. mais moom it mi ngi remercier ñi tànnalu ma ko man maa man maa ko tànn. waaw mais lu ku la wax ni looloo tax. yow yaa ngi jàpp na ci loolu rek ngay wax maa ngi nuyu hmm? ñi jàpp na ci. Hmm? ñu lan lan Adama moo ko jënd moom moo jënd. ah, ah waaw kon kay daanu ma macha allah moo jënd ci kon kay daanu ma rek waaw looloo base bi nag donc euh, loolu kañ sant yàlla en tout cas di wax ni ah. daal ah. Euh, loolu lépp ngay wax am na lu gën a yomb mooy saa sañse ga looloo gën a yomb wër wër loo bi yépp maanaam dem ba boo gisee waa ji sañse sax nga ne ko waaye du yow kan yow loolu Malick ci ah, yow boo xoolee sëñ Bara fa sa xel dem communication kii damay jox daf may jox APR ah, mel ne ku jóge à permanence ba waaw mën na tool de rek kookali la ca waar kookali rek la mën. <laughs> ngi noonu Cheikh Bara Ndiaye borom def gis ñu ngi lay nuyu di la ziar li nga sol rafet na trop style bii dafa mel ni moom nga adopté fan yi moom nga soloon jeudi passé. maa ngi lay nuyu di nuyu El Hadj Sanjogo Omar bun Xataab. ak euh, di nuyu Cheikh Souhaï bu Diop di nuyu sëñ Abdou Khadir Ndiaye xalifa sëñ Darou Assane ak sëñ mm. Mbacke Mariamu sëñ Ibrahima Ndiaye jëmb sëñ Cheikh Irada sëñ Gunda ak euh, sëñ Baara Ndiaye sëñ Makhtar Ndiaye sëñ euh, Muntaxa ak sëñ Basiru Ndiaye njaboot sëñ Daam Xari ak sëñ Masamba mi yëpp sëñ Mor Ndiaye sama mag sëñ Cheikh Mbacke Ndiaye sama silbilaat di wax nag sañ sa moom duma ko def ba pare maanaam dajeeg ay gone yoo xam ne sañ ñu may wax ak ñoom tey moom combat amul vraiment ça da ngay sportif combat amul waaw ah, ah. ah. combat kañ combat nu mu mel ni élection yi romb tey li ma la dóor ma teg waaw mais xoolal lii rek maron maron bees bi moom saf na félicité te nga sportif waaw ku félicité non style bi sax dafa rafet waaw mais dëgg dëgg sax ñëpp mënuñoo bi la jël grand bu bi lan yow da ngaa def semis yow defoo semis yow da def semis ba pare moom simisu allah la def ci biir saa njóogu tey la tey la xaw a tane ah. te lekk moom jënd tisi bi jëndu ñilaan boo gisee man ko ñilaan ñi <laughs> macha allah ñilaan yaa ñëw génn fi say bal <laughs> eh, mi ngi noonu euh, Cheikh Bara Ndiaye ñu ngi nuyu kat yi bu baax di remercier di ko ñaanal yàlla jàmm euh, kat yi yóbbante bi egsi na ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax chaque année nga def ko yàlla yàlla euh, jàppale la yàlla sàmm la sàmm sa njaboot ni ki noonu ñuy nuyu ñëpp ay ca ñu dem jël jëli kàddu mag ñi. Amar kàddu gaango di la ziar bu baax di féliciter Cheikh Bara aussi moo jël troisième ci élection yi. à part Diomaye yeeg Amadou Ba moo gën a mobiliser <laughs> ci élection yi tamit Khadim Bamba Diagne loolu la nee na à part moo gën a mobiliser ci réew mi. man ko yeneen candidat moo tax aussi démb Abdourahmane Diouf di la delloo njukkal. moo tax moo tax zéro yu bari. waa démb delloon la njukkal ci kat kii euh, nu tudd <laughs> émission Awa Diop Ndiaye salon d'honneur. oui oui léegi nag du génn élection yi comme sànq wax nañ ko. ay kàddu la yu yàgg yi di waxoon jëmale ko ci sunu président yi ak privilège yi ñuy am Diomaye nag balaa muy jot ci réew mi toogaay bi mu amoon ak waawal fajri dellusiwaat na ci fàttali kaddu yi Sidy Lamine moo tax bi mu faloo ñëpp tamit fàttali waat ko kàddu yi kon ñu déglu ko ñëwaat. ni ko euh, Sidi Lamine doon waxee yàlla ko yàlla dolli yërmande te xaari ko aljana euh, boo nekkee njiit dañ lay décharger poids yenn yi mu doon lim di doo xam li li courant di jar doo xam li essence di jar doo xam li sécurité di jar loolu yëpp dañ la koy téel pour nga mën a nekk ci euh, problème réew mi mais de surcroît kon loo gën a te xaalis allah tajua fiha wala taara doo xam facture doo xam facture lu lekk di jaar doo xam facture lu yëre di jaar doo rafle doo xiif doo mar yow ak sa jabar yow ak sa jabar dem leen ngeen dëkk ca tool ya dem leen ngeen gérer dem leen ngeen taxawu liggéey bi waaye du ngeen xiif du ngeen mar du ngeen rafle loolu lañ leen garanti waxul lu ko ëpp kon mu mel ni kon yàlla lam njëkk a def mooy nu ñu war a tere traité ki ngay dénk mooy teggil ko souci souci zéro susi ba nag jàpp nañ teggil ko ko duwul mu def lu ko neex duwul mu am lu lu mu bugg a am duwul leneen déedéet. Ah, mi doon élage Hadj Seydi Lamine Niass mu doon kàddu yoo xam ne euh, li xam na li mu wax bari na mais jomaay bi mu ko waxee la nit ñi indiwaat kàddu yi euh, moom tam bi mu faloo ñu tegalaat ko kàddu yi mooy euh, jomaay sax ni mu ko tuddee ci émission mooy accumulation maanaam moom avant mi fal daf na bëggul loolu. parce que bi mu duggee kaso da ci jàngee ni accumulation mooy dajale nee na li ngay dajale te soxlawoo ko loo koy doyee loolu la Diomaye waxoon parce que nee na bi mu duggee kaso ci la commencé di nalaw nalaw yu doy ci la commencé di am benn peex gi mais bi muy dem di uti naka tey uti bi coono la mais nee na li ngay ut yëpp lu bari doyoo ko dara kon nit ki daa am lu mu soxla rek pour dund bu dee ni nag danoo am un président de la république boo xam ne noonu lay xalaatee ba tax yàlla dogal ko mu indi kàddu yi Seydou Lamine kàddu yi nag jëm ci ndox ak courant maanaam bépp charge boo xam ne day diisal nit pour que liñ ko teg mën a jafe da koy teggi sa wér gu yaram say doom say jabar ak yeneen nekk yeneen si du sax waxul yëpp yemuñu rek ci teg la yooyu sax mais da lay jox ba jox la luñ joxul kenn maanaam duyal la koppar goo xam ne da la koy tegal na la soxla boo am faj ko ci te du la laaj foo koy dugal yooyu yëpp nag pour que nga mën a taxaw ci suñuy soxla bañ am benn ngant ci dara mais aussi bañ a am benn gàllankoor ci dara mu doon sasu njiitu réew di kàddu yoo xam ne Sidy Lamine Niass moo ko doon fàttali jomaay fàttaluñu ko mu faluñu fàttali waat ko ko euh, Cheikh Bara Ndiaye lii dafa mel ne lu diis la maanaam boo koy dégg mën na oyof mais bu dee xalaat nga sarju njiitu réew du lu du lu yomb. waaw euh, di kontaan parce que jomaay tey euh, toog na mu ne ni ko Sidy Lamine Niass di waxee. Mm-hmm. donc loolu référence la. boo xamante ne xëy na mi ngi bàyyi xel euh, kon siidi te siidi jàpp naa ne boo ko bàyyee xel dina bëri loo xamante ne nii ay ay ay ay ay ay yu nekk ci àdduna yoo xam ne doo ci jaar parce que moom du woon ku bëgg àdduna euh, du woon ko ku bëgg ak pal te àdduna moom boo ko bëggee rek wala nga bëgg ak pal ci sa xol rek mm-hmm. maanaam ci la sikk yépp nekk mm-hmm. saa boo amee teey ak ak dal ci àdduna ak lam amu maanaam da daal di nekk nit koo xam ne di mën a jariñoo àdduna mhm. président nag dafa nekk koo xam ne maanaam bu ñu la ko falee daanaka dañ lay toggaloo te bu ñu lay ñi lay conseiller sax dañ koy fay pour mu ceeb bii mel mhm. dañuy fay ay conseils yu dul jeex mhm. pour ñuy ñam xorom si di la wax ëpp na yées na booy duggi ku la téyel pañe bi oto bu la yóbbu boo yëgee ku la waxaaleel daanaka yow mooy am te bu ko sa loxo laal lépp loo war a def rek maanaam pare nañ pour wut ay nit sax yu la accompagner defal la ko mm-hmm. ba noppi maanaam jox la weer wooy dunde mm-hmm. fay la weer jox la budget jëlal la chauffeur jox la foo dëkk jox ko sax njaboot jox la sécurité maanaam lépp lu xaalis wala jariñ tamit dañ la ko jox ba nga xam ne yow doyeetoo xaalis dara. fii nag embouteillage sax kenn ki nga xam ne maanaam moom moo xaalis man mën naa mën naa bañ a laal xaalis soxlawu ko. Mm-hmm. mooy président. mais nag non seulement nag fii Afrique nag dañ fiy ñëwaat fekk fi maanaam président yi maal ginnaaw bi ñu leen defalee loolu ba noppi nag ñoo gën a bëgg nit ñi xaalis ñoom ñooy sàcc loolu nag psychologiquement nag ak bëgg àdduna la ak wéradi xam nga fi ne sàcc dafa am ñoo xam ne dañ koo baaxoore maanaam dañ maanaam am na ñoo xam ne nettali dañ ko duñ ko tey bu ñuy nettali duñ ko tay mhm. waaye am na ñoo xam ne bu ñuy sàcc fii am na waajoo xam ne dégg naa euh, benn waay xaw ma léeb la xaw ma daa ñëw ci kër gi soxna soxna sarakam daa ñëw ci kër gi mu nab ko bëgg a bëgg bëgg a wax ak moom daal soxna si wax wax wax mu ne ko léegi soxna si ne ko tey nangu naa. Mm-hmm. léegi damay tëdd ci néeg xale yi maa ngi tëdd place sàngam. léegi boo ñëwee rek yow ñaata nga ñaata laa lay jox mu ne ko cinquante mille nga may jox mu ne ko boo ñëwee bul wax ndax xale yi dañuy yeewu boo ñëwee jox ma cinquante mille rek nga def li ngay def ta dem. waa ji kontaan ne ko baax na léegi rakk ji dem ci soxna si waa ji wax ko ko ne ko sa jëkkër kat daf maa sonal wax naa ko ne ko tey ci néegu xale yi laay tëdd. su ñëwee bu mu tàll làmp bu mu wax yow bu ñëwee du taal làmp bi dalay jox fukki junni rek jëlal rek ngeen sëy léegi jabar ji def noonu bàyyi ba guddi mu dem ci néeg bi tëdd fi ko waa ji waxoon quoi waa ji yoot yoot yoot ba ñëw ci néeg bi fekk fi jabar ji daal di joxe cinquante mille yi daal di xewlu bi mu noppee rek jabar ji taal làmp bi mu xool ne effectivement ndekete ci rak ci jabar ji la dem mu taxaw di ko xool yaa ngi fa ndeke ku la sàcc nii ngay neexee <laughs> nga xam ne kooku. xàmmeewut jabaram <laughs> ak keneen maanaam esprit sàcc esprit sàcc gi rek maanaam moom moo ko neex comme moom mi ngi def lii te nekk da sàcc rek maanaam neex na ko mm-hmm. am na ñoo xam ne fii neen di privilège yi ñu leen defal ci seen bureau yi yëpp gisuñu ko ñoom li ñuy nax askan wi di leen sàccaat ñoom loolu moo neex ci ñoom parce que ñu ngi leen di ñu ngi jaar seen kaw daal loolu nag bu nekkee ci sa esprit nag maanaam kenn mënu ci dara waaye bu dee nit nga tuuti mm-hmm. te am ak maandu tuuti boo nekkee président soxlawul ngay sàcc dara mm-hmm. waaw Sonibou eh, yamuñu sax ci jox la privilège yooyu dañuy dem sax pour bañ sax ngay jël yenn cadeau yi maanaam nga bañ a jaawale sax cadeau bi la jox yow ak cadeau bi ñu jox réew mi loolu tax des fois ñuy bañ sax ñu jox président cadeau parce que danaan doyewu ko dara parce que corruption la ñuy bañ ak yooyu kon mooy wane ni kon lu dul liggéey rek sony bu ñuy waruñu ko mën a def. wallaay wallaay jërëjëf Omar am na solo xam nga eh, entretien bi sax seetaanoon naa ko ci foofu la defe naa seen people la. Mhm. mu tudd ci Sidy Lamine ay yoon yoon. Mhm. loolu nag dafay wane ni ki toog xam na ci réew mi mu nekk. dama dégg benn journaliste bu jigéen xaw ma turam kan la nag mooy femme bi nekkoon ci ay dara def naa jóge na fa léegi muy wax jomaay ni mu nekkee sénégalais. Mhm. ci colin gi maanaam ci jëf ak ci wax léegi nag bu demee ba. ñu am président boo xam ne dafa waroon a toog di ñu jox ay exemplaire ci ñeneen comme ni koy ñeneen ñi di defee. Mhm. mu toog di la jox koo xam ni tey bi réew mi di toll fii maanaam 2021 ba léegi Sénégal benn kàddu la ñuy wax ñu bari mooy dañoo manqué Sidy Lamine Niass ay bu fi Sidy nekkoon. léegi te boo ci boobu ki nga xam ne te yàlla préparé na ko moo war a jiite réew mi moom joxe di joxe exemple ci kooku ci wax yi mu doon wax ak nit nan la war a jiitee kon loolu xel mu dal la ci yaakaar yi nga xam ne jàppoon nañ dina tas ñu jàpp ni kon suñu yaakaar du tas ci liy ñëw ndax Sidy Lamine wax dëgg yàlla bi mu fiy nekk ñi ko doon xeex di ko ŋàññi ñi ko doon wax lu bon ak lu ñaaw. bi mu fi jógee ñoo naan ay bu ñu amaatoon ku mel ni Sidi léegi nag kooku tey lam doon rêvé moom Sidi Lamine tey bu yeewoon wala bu ñu kon pëkk-pëkk fa mu nekk ni ko la nga doon wax ci ay jamono ndax moo ne révolution faaw mu am maanaam Sénégal loolu moo faaw ndaw ñi jóg yeewu euh, ut koo xam ne mooy seen président dama jàpp nag foofu la toll ci Jomaay Fay mi nga xam ni ci ñetti weer yi nga xam ni ci la ko Ousmane Sonko tànn nga xam ni kenn foogul woon dina ko nekk ndaw ñi gis programme am ñaari kàddu la laa dégg ci Jomaay bi muy wax mm-hmm. muy sàccuma seen alal tey tamit bu ma ñëwee lu ñëpp bokk danañ ci jot mhm. cest à loolu gisuñu ay dinaa leen defaral ay tali est-ce ko ci campagne ren bi dinaa defar ay tali mhm. dinaa defar ay stade defar ay lii déggoo ko ci mhm. benn kàddu la mooy man mi ngeen di jox samay loxo set na wecc bu fekkee nag si Lamine ñëw nu ñëw na am kàddu yu mu wax jomaay déglu ko ba mën a toog di ko wax dañuy jàpp ni suñu xel dal na en tout cas yàlla bu yaakaar tas bu yaakaar tasul moom incha allah fii ak déwén ci heure bi jàpp naa ne ñu bari ñu joxuloon jomaay seen carte soo woote waatee ñoo koy njëkk jox seen carte mhm. parce que sénégalais bañul ki muy ki muy ŋàññi mais dafa gisagul mu def mhm. yàlla bu yaakaar tas euh, jërëjëf euh, euh, xaar mu mujjee ajaratu saa waaw di nga dégg si ak jomaay mhm. ak référence bi mu jël ci moom waaw loolu de waaw allah xam nga am na solo trop mm, référence bi nga xam ne jël na ko ci àlaaj si Lamine yàlla na yàlla dolli ay leeram Euh, mu nekk loo xamante ni bi lu am solo la waaw parce que moom kon daf ñu boo dégloo daf ñu fàttali euh, kàddu yu Sidi Lamine yi bëgg tamit ñu xoolee ko li euh, nga xamante ne bii mooy yoon wi nga xam ne bii moom la tànn maanaam tànn na aw yoonam. Mm-hmm. maanaam le fait que mu fàttali ñu kàddu gi. Mm-hmm. tànn na yoon wi nga xamante ne bii ci la fas yéenee jaar. Mm-hmm. ndax xam na. li koy xaar xam na ni teel nañ ko ay mbiram ay bëgg-bëggam maanaam dafet ko mu fàttaliku kàddu gi mooy amatut souci fay courant amatut souci fay ndox amatut souci lekk amatut souci naan amatut souci dépense amatut suusi boobu xam na ni léegi moom léegi ginnaaw bi mu ñu fàttalee loolu rek mooy xam na li ko war li ko war nag jàpp naa ni euh, ci la ko sénégalais yi di xaar te moom moo ñu joxoñ nañu xaar leen ma fii parce que xam naa li ma war mhm. waaw li ma war mooy li Sidy Lamine wax yépp yéen a ma ko téel li ma war nag mooy mën ma liggéeyal réew mi mhm. donc moo tax ma jàpp ni euh, incha allah ci kanam tuuti boo deful ndànk mhm. euh, bu yëf yi tàmbalee dox xam naa ne opposition bi war na yërëm naa leen waaw yàlla naa leen yërëm. Hmm. opposition bi yàlla bu ñu gis lu ñu critiquer waaw critique nag mënta ñàkk waaye daal yàlla nañ gis parce que tamit lool lu baax la euh, waaw parce que bu opposition bi demee ba amuñu lu ñu critiquer wala ñu koy wër mu jafe lool loolu day wane ni réew mi mi ngi dox yàlla na yàlla teg réew mi ci siraatal mustaqim mu jaar ci yoon. Hmm. mais daal gëm naa ni. Euh, lim ñu wax moom koo xam ne kii nekk nga ci buntu alal te jëloo yàpp naa ni daal problème boobu souci boobu awma ko mhm. waaw souci boobu moom ci ñi ma ko doon am mooy ñi nga xam ni euh, dañoo lijjanti ngir jot nguur gi mhm. waaw mais ñoo xamante ni bii dañoo bàyyi li ñu amoon jaar fi ñu jaar mhm. pour jot nguur gi pour defar gis yàq gi nga xam ne moom la yàqu gisuma leen ñu daal di ñëw ngir pasar pasare bu boobaa mënoon nañoo toog fañ nekk di pasar pasare quoi parce mënoon nañ ko quoi. Mhm. voilà loolu mooy li am solo xam nga ki mën a nekk fi mu nekk am li mu am. tranquille te kenn du ko kii. mu mën a mhm. lijji làqar ci boppam. donc du mhm. dem ba ñëw nekk président ngir lijjanti boppam quoi dañoo bëgg a lijjanti li lëj lëj ci réew mi. macha allah. ajaratu loo yokk. amiin ah, ah, ah. loolu loolu rek lañ ciy wax. waaw mi ngi mi ngi mi ngi noonu. des fois moo xoo ñu nan fexe ba rek inégalité yi ak disparité yi. bañ a sorante. maanaam boo féetee ci kaw askan wi suufee loolu ñàkk loolu yoo nga nekk njiit am loolu askan wi dinañ xeex ba wàcce waat la ci suuf. bul sonn kon euh, te benn kàddu yu Serigne Cheikh rek kon Serigne Cheikh comme Sidi Lamine dégg naa fu ma sa fekk Mamadou Dia di julli te Mamadou Dia dafa bëggoon julli. di naafila naafila bi yàgg Serigne Cheikh na ko boo jeexalee say farata da war a jublu ci farataay askan wi. ndaxte ëllëg li lay laaj mooy nan nga yore woon sa askan maanaam yow boo jullee say farata ba pare rek danga nga war a dellu ci faratay askan wi. parce que foofu la lay gën a xaar. kon euh, di ñaanal El Hadj Seydou Lamine Niass suñu borom yokk leeram te tax ñu ci barkeem comme li kii di wax géej la euh, tey jii yéen ñi màgg sax ci wetam. mais boo xoolee bari na ci ñun ñi di jomaay kase li ñuy tibbee ci moom bari na avant ñu dugg rek seetlu kii bi am na lu mu doon wax ba moom mu jël exemple ci Sidi maanaam euh, maanaam ndajeb xaalis jarutu uti sees ndax du yàgg. waaw waaw kon mu ngi noonu kon ñu lay gërëm bu baax ajaratu ji ñaanal ñëpp jàmm kon beneen alxamis rek ñu waat beneen magum réew mi incha allah waxtaanee ko incha allah ayca am na solo ñu ngi lay jaajëfal alaaji Sidy Lamine ñu koy ñaanal yàlla yokk leeram wàcce yërmandeem ci moom ci barke weeru koor gi ca ñu dem jëli pajum cosaan politique solution ci njiital alaaji Sanjoogu Mbeng ak Sohaybu Jóob ngir dëggal ak wéral ni suñu garabi cosaan yi lu wér la li waral seen boutique solution juddu ngir jële fi bépp xeetu caay-caay ci wàllu fajum cosaan ndax nit lekk alalam joxe ay garab yu wérul looloo waral ci diirum ñaari at yu manqué tuuti seen boutique solution di def ay résultats yu ama am solo biir réew mi ak bitim réew ci garab yi ñu leen di bëgg a limal ndoxum siit yi amuñu ci moroom hémorroïde bi nëbbu ak bu feeñ góor gu néew kàttan ay garab yu wóor te efficace te amul benn effet secondaire moytu leen garab yi ndox yi estomac dañ koy faj ba mu wér garabu asthme bu efficace même boo amee woon asthme bay piqué crise ñëwal fii ci boutique la solution bépp xale wala mag buy gént di tuur ndox ballottement tànk buy xar ba borom mënta sol ay ferme li jaaxal àddina bi yépp nag muy raay mu sedd bii ne ci boutique la solution lépp luy douleur ci yaram boo koy raay mes lay def am yeneeni mbir ci biir nag moo tax ñu naan ko raay mu sedd plus jaloore ak résultat yu la boutique solution di def tax na ñi ngi fépp ci bitim réew am na ca France États-Unis d'Amérique Canada Italie Espagne ca Gambie ca Angleterre Allemagne ñoo ngi en face Walfadjri ngeen mën a jot boutique la solution ci 78 426 66 77 wala 75 630 50 50 boutique bi xaatimul listixaarul seetul su ngeen bëggee dégg dëgg daal ba boutique la solution juddoo la jaay garab yi bon ak naxaate jeex. mi ngi noonu allah ji kaddu gaango jërëjëf ajaratu am mbégte di am kontaan di del seeg yéen seen rubrique bu mag bi nga xamante ni moom la ñuy pajum cosaan ñu ci ànd ak Cheikh Bara Ndiaye boroom def gis di ci waxtaanee lépp loo xam ni jëm na ci wàllu actualité waaye itam di ci waxtaanee lépp loo xam ni jëm na ci wàllum pajum cosaan ñu bari dañuy wax ni li xew ci pénc mi alxamis la ñuy xaar ngir Cheikh Bara faram fàcce ngir ñu mën a xam li ci pénc may lan Cheikh Bara Ndiaye borom def gis ñi ngi lay nuyuwaat. aasbillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaan rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi man wala wala taalamu nafsun ma uxfiya lahum min qurati ahyunin jasaan bima kaanu yamaluun maa ngi lay nuyu alaaji Sanjoogu yu nuyu ñu ñuy seetaan ak ñu ñu bokkal euh, plateau bi di nuyu ñu ñekk ci biir réew mi ak bitim réew yëpp liital ci nuyoo yi ak siyaara yi Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général de Mouride di ñuy teg euh, sunu way juróo ci kër ga di soxna Baali Mbacke Mountakha di nuyu sëriñ Abdou Samad Mbacke mu Serigne Souhaïbou ak sëriñ Fallou Mbacke mu Cheikh Souhaïbou di nuyu Serigne Basirou Mbacke mu sëñ Abdoul Khadir di nuyu sëñ Abdoul Khadir Ndiaye xalifa sañ Darou Assane di nuyu sëñ Moustapha Mbacke ibnu Cheikh Sidil Makhtar ak soxna May bintu Cheikh Sidil Makhtar ak euh, sëriñ Abdou Samad Mbacke ibnu Cheikh Sidil Makhtar sëriñ Moudou Aïssa ak euh, sëriñ Khadim ak sëriñ Saliou ak sëriñ Jili ak sëriñ Abdou Latif di njaboot sëriñ Sidil Makhtar yëpp maa ngi leen di nuyu ak sëñ Ateex di nuyu Moulay Aziz Guèye bu baax di sama xarit euh, ak maître maam Adama Guèye magam waaye di nuyu bu baax tamit sama nijaay sëriñ Khadim Lo Gaydel borom daam. Hmm. jërëjëf Cheikh Bara borom léegi Cheikh Bara Euh, balaa ñuy démarrer waxtaan bi dafa am kàddu yoo xam ni euh, da nga ko yëkkati woon avant les élections mu nekk kàdd yoo xam ni man bi nga ko yëkkatee ma déglu ko dama ne Cheikh Bara mi mi ngi ci risque lii mu wax nii fu mu ko teg ba tax mu wax lu ni mel euh, ba tax daal ma ne risque daal def nga ko ñu xool kàddu yooyu nga xamante ne bi moom nga yëkkati woon ñu ànd ci ak waa Rési Modou nga envoyé ñu kàddu yi ñu déglu Cheikh Bara lan la waxoon avant les élections moo tax élection yii man maa la jox benn affaire mhm. amul benn candidat buy gagné sa bureau de vote à yëpp nag te li ma la wax de li ma la wax ni mathématique laa la jox doone ma kenn du ci gagné sa bureau de lu tuuti te ciy tane Khalifa Sall lay doon boo may tuur sa Grand Yoff ak Thierno te ñoom sax dañuy perte sax seen bureau de vote yi mais ñooy tane sax gars yi ci des ñeneen ñi moom duñ gis dara Cheikh Bara Cheikh Bara fii moom da ngaa woon yow it sa carrière defe naa parce que li nga wax nii moom <laughs> sa carrière tegoon nga ko ci pécc bi Cheikh Bara lan nga gisoon ba tax nga ne amul kenn kuy gañe bureau votam te loolu demee ni nga xamante ni bii noonu nga ko waxee woon lan nga gis. xam nga dam lii li tax ma wax ko dafa demoon Daaru Moxti. Mm-hmm. am fa ay problème ma wax ne. Mm-hmm. Amadou Ba du gagné élection yi. du nekk président de la république ci àdduna. Mm-hmm. daat koy waat jël ñaar yi nga xam ne xam naa ne. Euh, ñoom ñaar mooy lu mustaxil ma nekk ko muy xanaa ma walbatikuwaat nekk jigéen te loolu mënta nekk. wala ma wëlbatikuwaat nekk leneen lu dul am murit te loolu ñaar yooyu moom jàpp naa ne ñaar yooyu mooy loo xam ne mustahil na mënut a nekk ma ne boo amee lii am xam nga loolu moom da nga war a dégg rek du léegi nag euh, après kii dalal ma di ma laaj ci yooyu ma ne ko nag li ma wax que ne loolu ma def comme ni nga wax rek erreur laak ma ne ko bu nee bu dee dama ko lambatu te teguma ko fenn waaw def naa erreur bu rëy waaye fekkee nag li may wax xam naa ko dimanche soriwul mm-hmm. waaw ma ne ko sax li ci li ci amaat solo mooy. waaw ah. benn candidat buy gagné bureau de vote am amul. moom mhm. ñëpp te yaakaar naa dix neuf candidats yëpp kenn gagné ci bureau de ba nga watee waaw ku dul Diomaye donc benn rek laa ci génne woon. Mhm. ñi ma waxoon ñoo ci tane gisuma seen chiffre waaye xam naa ne ñoo ci war a tane. mu muy Thierno ak Khalifa. waaw Thierno tane na tuuti moo tane defe naa. waaw boo kii. waaw am na loolu mais Khalifa moom piir moo ko xaw a lool. jeex na kon nag mi ngoog léegi nag loolu la. man li ma doon wax xam naa ko. xam na nit ñi moom. surtout sama mbokk yi. nga waxaat tamit ne. balaa. ñu julli gee maa la ko waxoon fii loolu kay nga waroon a dugal saa njóogu. résultat yi nga waroon a dugal waxuma la fii keroog ne la. waaw soo ndogoo. bépp sénégalais bu ndogu bala ngaa naafi la. waaw nga xam sa président. waaw wax nga ko ne ma loo wax ma ne la alxames dinaa ñëw fii dinaa toog fii. élection yi premier tour la su alxemesee Sénégal dina xam kan mooy président Sénégal. Mm. alxemes a ngi nii maa ngi nii loolu fàtte woon ko. maa ngi nii toog alxemes a ngi nii. Mm. xam nga président wala xamoo ko. loolu da nga ko gisaane woon da xool. wala dañ la ko wan wala da nga. en xam naa wala nan la yëf demee woon. waaw xam na daal en daal man. waaw dama bëgg sama mbokki sëriñ yi. waaw. du ma wax sax sama mbokki sëriñ yi ndax ñi ci ay sëriñ non am na ñoo xamante ni ñi ci ay sëriñ moom ay sëriñ lañ waaye bu dee yow bu dee yow da ngaa jàpp na yow mm-hmm. maag yow ñoo tolloo xam-xam. man taxaw naa ma ne diw bu diw nekk gañee ma ne ma ma am jëkkër kay. Hmm. yow tamit da ngay taxaw nga ne bu diw gañee ma am jëkkër comme man. nga xam ne maag yow moom kenn du ci rëcc. waaye mënoo ñoo naan non li mu wax nii di wax ay tapale. nga bu ku amut ñëwal ma jàngal la. waaw ñoom laay waxal yu bari wax yooyu rek di ca ba tararari. Hmm. ku ci amut xam da ngay ñëw fii nga aliwa te waaye fa ma jàngal la. Hmm. ay xam du ay tapale ay prier yu ma xam. saa njoogu man li ma <laughs> li ma la waxoon daal mu ngi noonu gis nga ko gis nga ko wasalaam voilà man sax nekk fii naan ay maa waxoon leeg maa waxoon laa uh-huh. ba may waat fii ci uh-huh. dëkk bii ne Macky Sall du def du du amati ab ci kaw suuf uh-huh. bu la 2 avril jàllee man Macky Sall jeexal na yaakaar naa léegi mu ëpp at ba ma koy wax booba Macky Sall ci boppam jàppoon na ne day def troisième mandat da koy am ma taxaw fii waat ci sëñ Touba Mbacké na du ko am def na lu mu xam amu ko de voilà nit nag bu ne fu ma joxañ ab jant génn fa del joxañ penk waaw ay wax di làmbatu moom bu bii paa da ngay wax dëgg bii paa doo wax dëgg bu dee nag li ngay wax am na ay sources yu leer yoo koy teg mm-hmm. ah kooku nag moom su ma ko waxee man maa ko wax mm-hmm. voilà ñoom nag jërul ñuy bari wax parce que yow bu fekkee ma dama ne dimanche la waaw diw lii mooy am yow kenn négal ba dimanche waaye bëgg ci njëkkante defi vidéo woo site yi kenn ku ne di jaay taral rek maa ngi leen di gis ñoom ñëpp gis nga leen waaw maa ngi leen di xool man kay moom ñëpp ah. <laughs> yàkkamtee tontu ba prier sa carrière jëru ko parce que yaakaar naa ne bi affaire bi amee ñoom dañoo nañ génnaat ne dañ doon fen wala ñu ne ma baal ma àq sax ah, ñu honnête quoi moo a ñu honnête daal ne ma ah sëñ baarakat ay la yéwén nangam mais hmm. taxaw bëgg a bëgg dugg ci ron ron lal yi baal naa leen nañ nekk seen ron lal <laughs> ah. waaw surprise non ñoom ñëpp Amadou Ba lañ doon waxal. Mm-hmm. waaw Amadou Ba ci boppam. Mm-hmm. ay sëriñ la yaakaaroon. jël addunay sëriñ indi ko Ndakaaru appartement meublé yëpp mu sarta fay sëriñ. barke sëriñ mbamba fu ne mu dugal foofu sëriñ jàpp ne. defe ne moom maa affaire bi mën na ko wëlbatee wëlbati moom daal tiktokeur yi sëriñ yi. la ko yaakaaroon. foofu la ko tegoon waaye sa junniy sëriñ maa leen man hmm? moom xam naa woon xam naa. jërëjëf Cheikh Cheikh Bara mbir moomu sax parce que yow mii xam nga Cheikh Bara doomu Touba nga te Moustapha Diakhaté périer na Touba moom moom bi mu jëlee ku dafa mel ni Touba la sippi mer mi xam naa nag résultat Touba yi na mu doon dawee xam nga tamit résultat Touba yi mu Cheikh dafa xaw a doy waar parce que 260 nangam Amadou Ba 16 loolu wax dëgg fa yàlla naqari na Moustapha Diakhaté ba Moustapha Diakhaté dal na ci kaw Touba nee na nag tuubaa ñoom xamuñu. waaw te it wax na fa. maa ngi ay wax yoo xamante ni bii moom. maa ngi nuyu moom doo nga ci mën a wax. maa ngi nuyu Mamadou Makhtar Sarr. Mamadou Makhtar Sarr ah, ne ko dinaa ko woo damaa nekkoon ci xat-xat yi rek. gis naa may woo keroog xam naa résultat <laughs> tubaay la may doy. léegi Moustapha Diakhaté damay résumé nit ñi li mu wax ci gàttal. ñaawoon na waaye dinaa ko wax ba pare. pour ñu ah. mën a xam li ma koy tontu. Mm-hmm. mooy dafa wax ne. Touba wateel nañ koo xam ne du seen mbokk ci diine. Mm-hmm. du seen mbokk ci pas-pas. du seen mbokk ci dara. waaw Euh, loolu nag day wane ne 1927 mooy ba sëñ Touba génnee àdduna. la nit gëj a defaroo Touba nee na sëriñ Touba moom 1927 ak tey jii kenn defaru fa. Mm-hmm. nga xam ne kon Touba sëñ Modou Moustapha ba ci sëñ Muntaxa mi fi nekk. Mm-hmm. maanaam dañ faa nekkoon noonu waaye defaruñ kenn loolu nag euh, mu problème dinaa ci ñëw. Mm-hmm. waaye dafa am loo xam ne ci aspect intellectuel laa koy njëkk a tontoo. ba noppi doo ko tontu ci aspect bi mu waxee. su fekkente ne Touba dañoo maanaam pourtant Touba ni ñu watee. 2012 ak léegi. noonu la maatam di watee 2012 ak léegi. te mosoo dégg mu tudd waa Matam. waaw ñoom ñëpp dañuy ànd. bokk wateel kenn nit. waaw ngi koy def di ko defaat élection yu ñëw. Mhm. pourtant waa Touba ñoom ñëpp dañuy ànd wateel kenn nit. Mhm. mi ngi koy ŋaññi ci tuuba te ŋaññu ko ca Matam. lu tax loolu Moustapha Diakhaté. Mhm. bu dee maatam sax man ngaa wax ne ñoom ñëpp dañoo ànd di wateel kuñ mbokk seenu mbokk mu fa dëkk. Touba nag ni ñuy def. Mhm. loolu kuñ defarut. waaw ba noppi mënoo koo def. Mhm. mooy nga wateel nit koo xam ne Moustapha moo wax ne du suñ mbokk ci diine. waaw accord. Mhm. du suñ mbokk ci tariixa. d' accord du suñ mbokk ci dareet. waaw d' accord dëkkut ca dëkk ba. Touba kay ku nit kuñ defar ba noppi. loolu ñu def noonu àdduna lañ ko war a jàngal. kuñ defar ba noppi moo mën a xool nit koo xam ne vision rek nga ko àndeek moom. ak jaar jaar. rek nga nga ko xool ci moom waaye xooloo ne bokkul ci tariixa xooloo ne bokkul ci diine xooloo ne bokkul ci mbokk gi mm-hmm. nga woteel ko ngir jaar-jaaram ak vision bu mu am ci réew mi waaw kon kooku buñ ko defarut ba noppi mënu koo xam mm-hmm. dégg nga buñ ko defarul rek mënu koo xam mm-hmm. kon dañ koo defar kon Moustapha Diakhaté Touba mënuñu leen a ñàkk defar ba noppi ñu mën a jël vision boobu pourtant àdduna bi yëpp dañuy xeex nit maanaam guerre civile am ci bu fekkonte ne waa Fuuta dañ ne Macky Sall moo bokk ak ñun fii la bokk mooy jiite réew mi. waa Siin ak Saalum ne Jomaay ci ñun la bokk mooy jiite. waa Touba daat ne par exemple Bougane fii la bokk suñ mbokk la fii la juddoo fii la jaar ñun moom la ñuy fal. waa Casamance ne Sonko la maanaam loolu mooy indi guerre civile. mais su fekkente ne askan wi mature nañ. waaw ba yow nit ki bokk ci yow te yorul programme bu baax. Mhm. ki bokkut ci yow te am programme bu baax ci sénégalais yi moo la ko gënal. waaw kooku mooy ki ñu defar. Mhm. kon li mu waxal waa Touba. ak defaru rek moo mën a tax Touba di wateel Diomaye. waaw bi ci des nag mooy nee na 1927 ak léegi defaruñ kenn Touba bëgguma cee yàgg nag parce que amaluma njëriñ. waaw waaye moom loolu bu ko waxee dama koy laaj fu baayam defaroo. Hmm? waaw ndax 1927 moom fekk na baayam defaroogul. Hmm. ndeyam fu mu defaroo bañ mën koo yóbbu ci néegub sëy muy sëy ba jur ko. Hmm? bu dee defaruñ kenn kon ku defar ndayam ak fu ndeyam war a defaroo. 1927 mu fekk na juddoogut. waaw fu ñu ko defaree moom te fu ñu hmm. toll naan sëñ Cheikh ma yar jàngal ma ba ma màgg kon suñ Cheikh mi la doon yar jàngal la xanaa moom bokkul ci sëriñ si. Hmm. bu loolu lépp jàllee nag ku sa koo xam ne gëm nga ne yow sa ndey defaruwul. waaw ndax bu waxee waa Touba defaruñ kenn moom sa ndey defaruwul. Hmm. gëm nga ne sa baay defaruwul. gëm nga ne defaruwoo yow nooy xàmmee ku defaroo ku defaruwul. <laughs> moo tax waxkat day wax ba lambu taatam ne wii du saa wos di saaga di saaga ba saaga sa ndey ak sa baay nag saaga sa bopp. moom la Moustapha def. Hmm? waaw ah bu fekkee kenn defaruwut Touba kay kon baayam lay waxal. Hmm? waaw ndax baayam moom li waa Touba def ci moom bu ci génnee mu jeex. Hmm? ndeyam kasaalika moom mooma kasaalika. waaw te xam naa ne ku kawat wat uuf ko tudd ko sax Mbàkke la sant. waaw kawat baayam uuf ko tudd ko Mbàkke la sant. kawat ndeyam uuf ko tudd ko Mbàkke la sant kon ñun bu ñu defarut bu defarut moom fu mu defaroo. waaw. taawam boobu Mouhamed ki ko wat tudd ko Moustapha taawam ki ko ki ko wat tudd ko Mbàkke la sant hmm. yow li waa Mbàkke def ci yow bu buñ ko dindee mu jeex nga ne waa Mbàkke defaruñ dara kon kay sa baay ngay waxal hmm. mhm. d'accord jërëjëf Cheikh Bara ci mbirum defar googu defaru gi defe naa ni leer leer na faram fàcc nga ko ba mu daal di leer eh, sa waa xam naa temps yi kon dina calculer mbir yooyu Cheikh Bara <laughs> ñu ñëw ci laaj bi ñëpp di laaj Ousmane Sonko Ousmane Sonko nag Cheikh Bara nag euh, jaaxal na nit ñi xam naa jaaxal na sénégalais yi jaaxal na leen trop et puis jamono jiñ toll nii tamit nit ñaa ngi jaaxle ci Ousmane Sonko lan la war a doon ak lan la war a kii ak ginnaaw bi mu falee nit ñi ba pare defe naa ñi mu faloon moom ñu ne faluñu ko bi résultat yi génnee nangu nañ ñi moo leen fal léegi parce que loolu moom wane na ko. loo ñuy wax ci ki nga xamante ni kii mooy Ousmane Sonko ak tamit fi ñu jëm lan nga yaakaar ni daal moom la war a taxawee ci nguur gi nga xam ne bii président Diomaye Faye euh, mi ngi koy incarné. waaw léegi nag loolu moom ñu koy Sonko dafa nekk loo xam ne. Hmm. Euh, ab temps bu bari la laaj. temps bu bari tey mooy émission boo xam ne li teewandoo ci sama bopp bi. Hmm. lu nekk nga xalaatandoo ko bëgg koo waxandoo sax du lu xaj ca temps bi. Hmm. parce que loolu nga wax rek daanaka maanaam ab thème bu rëy rëy la muy Ousmane Sonko ci boppam. parce que man dafa am loo xam ne da xalaat naa ko te yaakaar naa ne dinaa ci woo peuple bi yëpp. Mm-hmm. mooy ñu taxaw ci jëmmi Ousmane Sonko jàngat ko. jàngat moom mooy kan. ak jaar-jaaram. Mm-hmm. ak lan la def ci démocratie Sénégal. Mm-hmm. ak askan wi fan la leen jëm Ousmane Sonko féete. parce que Ousmane Sonko su ma ko doon wax moom ak askan wi damay wax ne ñaar lañ ñoo xam ne kenn mënut a fay sa morom. askan wi ak Sonko Ousmane Sonko askan wi. askan wi mënuñoo fay Ousmane parce daf ñoo dindi ci lëndam goo xam ne. Mm-hmm. ak loxo yoo xam ne mënoon nañoo dundaat juróom. waaw mu ñuy lorta duñ ci mën a génn. Mm-hmm. mu ñëw dindi ko ak prix bu seer. Mm-hmm. ci njëkk ci moom perte liggéeyam njëkk ci moom perte euh, euh, ak indépendance am njëkk ci moom maanaam ñuy dóor di tëj defe naa ne nit ki gën a ŋàññi xas ko ki téeméeri at yi Ousmane Sonko la tudd. li ñu ko xas ak li ñu ko ŋàññ ak li ñu ko wan ci xeetu kàddu rek maanaam verbal rek li ñu ko jëmee ci kawam. Euh, kooku Ousmane sonk la ak liñ bind ay livre ci benn bu ci nekk maanaam bu doon maanaam ci yàq deram dong la lépp nag maanaam am lu mu loon askan wi bi mu ko bëggee tamit li tax askan wi tamit Ousmane gën a fay mooy dañoo futti ko ànd ak moom ñii di ci dee ñii di ci dem kaso ñii di ci ñàkk seen liggéey comme moom mhm. waaye terewut xe ànd nañoo xeex ba li bëggoon kon donc Ousmane mënut ta fay ndax defal nañ ko lépp ci prix bu seer ñoom itam. Hmm. waaye askan wi mënuñoo fay Ousmane Ousmane mënut a fay askan wi waaye askan wi mënut a fay Ousmane Sonko. parce que bu dul woon ak moom jàpp naa ne heure bii maanaam Macky sàll mu ngi làbbali troisième mandat ba war a def prêter de serment continué waat ak fu ñu xamul. Hmm. donc kon loolu mooy Ousmane Ousmane nag dafa am lu man am lu mënut. Hmm. lim man mooy taxaw doon as gor. Ousmane ku natt ci gor. wàññikul mhm. ba noppi am aw fit ku ko ci fit mhm. wàññikul ba noppi am ak doylu mhm. maanaam doylu ku ko natt ci doylu tamit wàññeekul lépp loo xam ne rek maanaam man bu ma ko doon lim par benn day bari parce que tey dafa corriger tubaab yi nga demoon jël ay Machiavel mooy ñi nga xam ne dañoo théoriser politique waaw li ñu waxoon mooy politique ak jub mënta ànd boo bëggee def politique doo jub boo bëggee jub doo politique Ousmane nag leen a weddi. Mhm. mooy dafa def politique ba noppi jub. waaw ba noppi réussir ko. Mhm. te loolu dafa nekk loo xam ne Sénégal ni askan wi tëddee ak ni ñu demee maanaam kii politique te jubut. Mhm. maanaam day mel ne aw xiinu noor rek ak askan wi. day am lu mu ëmb ci moom loo xam ne saa bu ko xamee bàyyi ko. ki nga xam ne dafay politique te jub. kii jub sax te politiqueul sax bu ko askan wi xamee ne kii dafa jub da gis askan wi yëpp nangulandoo ko. donc kon Ousmane dafa couriser tubaab yi ba noppi indi modèle politique boo xam ne ñun Sénégal ñu wërta nangooti sax ku amul façon bi soo koy politiquer ñuy nangu di déglu sax discours. waaw donc loolu ci la nekk bi ci des mooy boo demee Mandela na mu mel am na lu mu ci def lu bari mais am na lu ci bari loo xam ne Afrique du Sud ko ko defal. Mm. muy peuple ba. ñun am nañ am Mandela tey. Mm. waaw Mandela xeex na. Mm. malgré que lépp doon xeex sax lu lu yu bari la yoo xam ne méngalewu ma lu bari. waaye dafa xeex te bi mu jotee bi mu xeexee jot na ci nguur. Mhm. def ci cinq ans joxe ko. waaw joxe googu mu ko joxe ci cinq ak li mu ko xeex ni mu baree. Mhm. ci lañ ci la ci la ci la ci la ci la yëfam gën a jëkkati. waaw Ousmane nag xeex na ko te bi ci jot jotee. waaw maanaam joxe jotu ci. te bari na anam yu mu ci mënoon a jotee. Mhm. ndax Macky Sall ku ne xam ne ne bu ko jàppale woon ci puusu élection yi. peuple bi nangu ci. conseil constitutionnel mën na leen a topp. te bu ñu àndale woon élection yi rek. Sonko mooy nekk candidat. Ah. bu nekkee candidat mooy nekk président. Mhm. waaye sàmm démocratie Sénégal. Mhm. moo tax nanguwul Macky Sall wax waxu fomm élection. parce que mhm. bëggul institution yi yàqu ba pare moom mu koy jiite. boo demee ni euh, euh, Thomas Sankara ca Burkina. am nañ Thomas Sankara. Ah. parce que tey ci li muy woote ci Sénégal ak panafricanisme gi muy woote am nañ ko te sax da naan euh, Mandela. Euh, na Thomas Sankara ni mu jotee ci nguur Ousmane Sonko mënoon naa jote noonu ci nguur te ba mu ci accès dana du ko def. Hmm. parce que tey deux mille vingt et am na nu mu doon demee bu toppoon population bi mënoon naa dem ba mën naa doon euh, waxuma la sax jot ci nguur gi waaye kon yu métti yi ko Macky Sall tegaat yëpp su su ko neexoon du ko du Macky Sall du ko ko teg parce que deux mille vingt et un la nguuram di jeex. mais xata te Ousmane ku gis vidéo yam defoon xam ne ko am ku am vision la ci kanam. maanaam mm-hmm. dina xam lu ñëwagul. xamoon na ne deux mille vingt et un bu Macky Sall waatee nguuram gi tamit du doon jàmmam du doon jàmmi ñi àndal. Mm-hmm. waaye ñàkk jàmmam ñàkk jàmm ñi àndal daf ko jural mu bàyyi askan mu mu bàyyee Macky Sall nguur gi pour institution yi mu yi mu fekk yi Macky Sall téye. Mm-hmm. yi taxaw. kon Ousmane Sonko da ngay gis ne saabut institution Sénégal yi taxawee ay bëgg-bëggam taxaw day day bàyyi mu jàll. kon kooku nit la koo xam ne ñun peuple bi ñun ñoo ko war a delloowaat njukkal. aar ko. protéger ko protéger boo xam ne nag maanaam euh, parce que Sonko dafa def révolution mm-hmm. bu yéeme boo xam ne maanaam ci Pacifique la ko def Ousmane wootee na ba am ay parrainage yu ko mën a yóbbu amana am quinze pour cent ci élection ah. mën a def ket am un am lu ëpp cent million yoo xam ne benn politicien mosu ko am mm-hmm. te Pastef boobu mosu ta am prisonnier politique mosu am benn xeex mosu am affrontement ànd ak ànd en digganteem ak takk der ñi muy politigal ñoo dem ba gis ne a deux mille vingt ñu gis ne kii kat askan bi benn warteel nañ ko mu am quinze pour cent ñaar ñi ngi koy ketal xaalis. Ah. bu bari kon kii fa mu jëm ak ñun ndox yéegu fa. Hmm. ñoom ñoo jël ay ngànnaay jëm ci kawam pour dakkal loolu. Hmm. mu riposte riposte boobu moo tax mbir mi am ay moor. waaye bu doon jëmi boppam révolution bi ci pacifique la ko doon yóbbu. Hmm. donc kon kooku mooy Ousmane Sonko askan wi nag ñun ñoo war a am fulla ak fayda ci aar ko sàmm ko bañ a def comme. xaritu euh, nuróowaale kii mi Aliou Ndiaye. gis naa ko ca télé ba. mu def loo xamante ne naqari na ma lool mooy naan sonk Ousmane Sonko non euh, affaire Atepa Goudiaby non Atepa Goudiaby dafa jàppale Sonko kon donc Sonko bu toogee Atepa Goudiaby lan la defal Sonko. Hmm. Atepa Goudiaby toog Macky Sall woo ko yónni ko ci Sonko. waaw Macky ko yónni di. mu ñëw ci Sonko wax ak moom dellu ca Macky nga ne ko léegi jàppale na sonk lu mu ko jàppale da koo jox dërëm. wala da ko jox ñaar dërëm. may wax mu naan non transparence bu amoon. li waa Pastef di ket ñu xam fan la koy dugal mais Aliou Ndiaye li muy incarné nee na moom grand journaliste la. waaw mais ana enquête yu mu ci def. un grand journaliste kay bu gisee lu ko jaaxal. Mm. mais daf ciy def ay enquête am. su ñëwee ne man. Mm. def naa ci enquête. Mm. mais da ngay toog rek yow am nga ci doute. grand journaliste kay bu amee doute ci grand parti bi gën a rëy ci opposition. waaw Jamil Sané moo yor finance bi mi ngi fii. Mm-hmm. chaque année dañuy dem ministre de l'intérieur jébbale état finance bu parti bi. Mm-hmm. mais na dem ministre yow. waaw nga nekk say say say say soxna bëtóor di tu suyee say théâtre <laughs> ba noppi ñëwaat naan am naa dut ci euh, am naa dut ci xaalisu xaalisu xaalisu Pastef bi kon donc transparence amu ci bu ci amul yow loo ci enquête ah foo ñu koy waxee ah yow Pastef mhm. rëbës ñaata détenu fa nekkoon plus de 2000. waaw lan lañ doon lekk lan lañ doon naan. Mhm. avocat yi lan moo leen doon defal lépp luñ bëgg. Mhm. seeni kër yiñ bàyyi woon. parce que fa ko doon yor. lu ci ëpp. waaw dépasse location. ñenn ñi place lañ leen yoroon ñu tëj ko ñu jël place bi di ko fay en charge. Mhm. ñenn ñi yóbbu nañ ay nit prix de cent millions def nañ ko ci faj kese. Mhm. dégg nga kon donc ñooñu. su fekkente ne Aliou Ndiaye yow mënoo jéem a xam fan la xaalis bi faj gone yi jóge ak ñu yor 10 millions di dugg rëbës par mois daanaka. Mhm. ah ak lii entretien parti bi ba ku génn taxaw ne gërëm naa gars yi nañ ma taxawoo. xaalis boobu boo mun a lijjanti fu mu jóge. waroo lijjante ñun suñ ket fan la jóge. waaw comprendre nga. nit da ngay nekk intellectuel wala nga noppi mais bañ usman Sonko bañeel goo xam ne. Mhm. bis bi ñuy célébrer élection yi lay laaj lii. ah voilà ci semaine bi Jomaay Faye wane. Mhm. patrimoine am. Ah. moom moomu mu ñemewut a def patrimoine am. Ah, waaw aussi ñi muy naw ci Sénégal muy Youssou Ndour mi muy wër di waxal. ak ñi muy naw. Mhm. na ci kenn génnee patrimoine am. kon donc ñi moom na nax jàpp na xoolal mayuñu sax yenn yooyu quoi. ay nekk fii di ŋaññi Ousmane Sonko ci gratuite yooyu lañ war a bàyyi. Ousmane Sonko koo yaakaar ne li may wax nii nag bu dee damaa ëppal ak lu ma xamut. koo yaakaar ne moo ko gën a yayoo. ñu teg ko def ko def ko chef. waaw ngandum dem chef de démocratie. Mhm. da nga koy indi. ne kii kat Ousmane Sonko mi yayoowu ko di woo ko yayoo ñu natt ko ci baxam. Mhm. tant que mënoo ko nag da ngaa war a ñun ñoo war a am fullay protéger Ousmane. Mhm. sàmm ko aar ko te moo ci war a jiitu ñëpp. bu sans complexe nag. Ah parce que. na xomay ni mel Iran. waa Iran la. na Mahatma Gandhi mel Inde waa Inde la mhm. Nelson laa na mel waa waa waa waa Afrique la mhm. Sonko dafa toll foo xam ne pareegul nag ci politique moo tax am na yoo xam ne mënoo caa yegg waaye Ousmane moom dañ koy protéger dañ koy aar mhm. dañ koy sàmm te nañ bàyyi di bind ci moom ay fen ak i li ngeen wax ci moom lu bon wax ngeen ko ba pare mm, yooyu dafa war a dal prouvé na parce que ba ngeen di wax da ngeen ne woon nguur dong la bëgg mm. moo tax muy rey gone yi bëggul nguur parce bu ko bëggoon voilà mhm. kon loolu nañ ko na leer kooku mooy Ousmane Sonko dinañ ci mhm. ñëwaat ci yeneen wax. incha allah dégg nga waaw waaw jo euh, voilà. des léegi euh, temps bi mi ngi kii temps bi mi ngi loolu. waaw Bassirou Diomaye amoon a wax Cheikh Bara Bassirou Diomaye président Bassirou Diomaye Faye. waaw macha allah mi nga xamante ni waaw président Bassirou Diomaye ngi koy wax ne. waaw am naw sas. am naw sas benn mooy moom na fexe ba appareil politique am. mu mhm. téye ko appareil bi nag kenn rek la. mooy téye Ousmane Sonko. Mm-hmm. Ousmane Sonko tamit na téye appareil am. appareil bi mooy askan wi ndaw ñi. waa diaspora bi mag ñi ak ak ñëpp ñi nga xam ne ni ñoo doon liggéey ak moom. Mm-hmm. ci ci ci bi biti. su fexee ba téye loolu rek am nañ ci yaakaar. Mm-hmm. parce que tey gis nga avant ak économie moderne di am. mooy mooy nouvelle économie yi am moderne yi. avant muy am. maanaam buur bu maandu foo ko mas a gis. ñàkk jeex na. da koy jël exemple ci ku mel ne Omar Ibn Abdul Aziz. Ah. amuñu woon ay PIB. amul woon ay banque mondiale yooyu lépp. amul woon yooyu yëpp. mais bi mu maandoo ci nguur gi. waaw doxal dëgg rek. Mm-hmm. da ngay gis ne diir bu gàtt. Mm-hmm. ak ñàkk dafay jeex. kon donc waxuma la li ñu am ci ay ressources. waxuma la ay banque ba àdduna bi ni mu koo léegi. Mm-hmm. économie vision économie yi am. mais su doon tane ñun Sénégal buur bu maandu dëgg tam te tamit dëgg ci moom rek lañ am. waaw kooku da jàpp nañ ne ñàkk day jeex. te man gëm naa ne. maandu ga woon ci ñoom Omar Ibn Abdou Aziz. mi ngi ci jomaay kon jàpp naa ne. lenn moom danañ ko am mooy. Mm-hmm. pauvreté moom. Mm-hmm. dana fi jógee. ndax parce que koo xam ne nag. Mm-hmm. su fekkee Abdou Diouf damaa jàppatul kañ la def prêtement de serment. Abdou Diouf kañ la def relevé de fonction bi la jël fonction bi. mooy passation de service. 83 la jël kii parce que moom da am Senghor moo ko joxoon nguur. non Senghor a ko jox 80 80 euh, non 83. 80 kii la ko jox nguur gi. Ah. waaw mais dafa dawal. non ma defe na quatre vingt la man daal li ma xam mooy ba Abdou Diouf di jël nguur gi daal booba jomaay dañ koy doog a ngénte ci gàttal. Hmm. ndax su ma juumal jomaay bi sub le 2 avril lañ ko ngénte hmm. kon nag le 2 avril quatre vingt lay lay nekk ngénteem ci la hmm. vingt cinq la judd kon <laughs> wala le 3 bi mooy nekk ngénteem koo xam ne nag maanaam bañ lay ngénte la ko defoon prêter de serment tàmbalee yàq yëf yi. di yàq di yàq ngay judd nàmp muy yàq. ngay ngay jàngi muy yàq. nga nekk université ñuy yàq. ba nga dem ba toll ni nga toll ba mën a yor nguur gi. Mhm. ñëpp ñu fi jaar daanaka ci yàq yàq économie beeg yàq nguur gi lañ nekk wal kooku mhm. defar ko lu jafe la. parce que boo boolee ba jëlee nguur. ak douze ans yi Wade ak douze ans yi Abdou Abdoulaye Macky mooy quarante quatre ans net. Mhm. vingt ans yi Abdou Diouf douze ans yi Macky Sall douze ans yi mooy quarante quatre ans yi Diomaye am. kon da ngay jàpp moom bi bi Abdou Diouf di jël nguur gi booba ab liir la buy nàmp wala bokk ñu doog a ngénte la. donc kon loolu dafay wane ne. mbir mu sori la waaye nag maandu ak ak xam-xam amul lu mënta ñàkk defar mhm. lu mënta defar amut mhm. te gis nga jomaa yi maa ngi koy dénk benn affaire mooy lan mooy na fexe ba nga xam ne entrepreneur yu ndaw yi yi nekk ci réew mi mhm. mu fonk leen parce que ñooñu euh, seen liggéey dafa jafe parce que état bi daanaka reconnaître leen lu tax reconnaître leen mooy jànguñu tubaab waaw boo jàngul tubaab rek du leen xam te pourtant mm-hmm. ñooñu li ñuy portel économie mm-hmm. dafa bari mu fexe ba nga xam ne suñ soxlaa ay prêt ci banque bi mu yomb wala mu wutal leen beneen forme boo xam ne duñ dem ci banque bi ba noppi mm-hmm. mën a am prêt tam fexe ba xam leen daal parce que ni mu leen di xamee loolu beneen façon la boo xam ne état dina ko xam mais mu xam xam leen mën a jëflante ak ñoom te sax nag même entrepreneur bu ndaw Mhm. su defee yenn chiffres yi ci banque. état bi gis ko ba xam ni kii kat entrepreneur bu loolu def na yenn chiffres yi. Mhm. dañ ko war a may mu am passeport diplomate. Mhm. pour tukkeem di yomb. parce que kii def yenn chiffres yi ci Sénégal kooku moom xalaatul dem bitim réew di fa toog. kon kooku tijjil ko yoon woo xam ne dafay tukki tukki bu gaaw di mën a dem di ñëw pour liggéeyam gën a baax. loolu la la la la la nga xam ne. maanaam bu ko defalee askan wi jàpp naa ne ñu bari parce que Sénégal ñu nekkul ci biro yi ñëpp. ñu ngi ci seen boutique ñu ngi ci seen affaire ay affaires yu ndaw di. taaba taaba taaba taaba nga kon ñooñu bu leen xoo gestoo rek daanaka day may wax ne gestu na Sénégal yëpp. Mhm. li ci des nag mooy ñaanal ko yàlla. Mhm. mbir mi jikko. te yomb ci moom te nooy ci moom. di ko wax nun nag. Mhm. jeex na. ma ñëw ci sama programme. waaw sa sa programme. waaw léegi eh, mën ngaa ñëw ci sa programme Cheikh Bara. waaw ñun nag. Ah. ay dongay daara lañ yoo xam ne. Ah, lii ñuy def naam du suñu métier muñ jàng waaye ñi ngi ci tax sénégalais yi bëgg nañ ko mm-hmm. waaye di wax rek euh, ñun mm-hmm. suñu diggante ak ak ak Ousmane Sonko laay wax waaw maanaam xuus ndox ba ci baat la amatul dëpp amatul dëpp waaw mm-hmm. maanaam nekkul diggante boo xam ne da ngay dem ba mu yàgg nga wàññi ko waat taxaw fee di ko sànni xeer wala taxaw fee naan man duma la jege duma wax ak yow non non du def loolu man li may def mooy gëm naa Ousmane Sonko gëm naa joomaay gëm naa ne li ñuy defar baax na. Mhm. pour sacrifice yi ñu ci def te loolu peuple bépp laa ciy woo. sacrifice yi ñu def ñun. Mhm. ba teg fi ñii. Mhm. dafa soxlawaat yeneen sacrifice yu ko gën a xóot. pour ñoom ñu gagné li ñu ñu xam ne li ñu doon def kat pertuñu ko. su ma xalaatee sama grève de la faim ya xalaat sama sama garda bii sama kaso yi. tey ma gis ne la ma doon def kat neenul mu ngi nii téye naa ko. loolu dooy xam ne pertu ma woon li ma doon xeex comprendre nga mais su fekkee nag kenn ku ne dafa bëgg wane ne man noo du ma du ma intéressé ci nguur man li kenn ku ne njëkkante yàkkamti wala ñu fexe ba dóor ñu ci seen kaw ñuy ñuy ñu ñu ñu teel a taxaw di di di di mel ne ku koy gàllankooraat su boobaa ñun ñooy grand perda yi ñun askan wi kon nañ takkaayu jàppale ko man nag suji laa xaw man nu ñu koy waxeeti on est là pour toi pour vous ah pour pour qui pour pour pour ak yow de on est pour les projets des PASTEF. Ah. Pour, pour, ta, pour, euh, pour t'accompagner euh, jusqu'à jusqu'à bout. <laughs> léegi nag maa ngi wax ne kon ñëpp. politique bi jeex na. Mhm. campagne yi jeex na. maa ngi waat ci sama liggéey. Mhm. muy ca daara ja ku am mhm. donga boo bëgg mu jàng alxuraan. te du fay dara. soo ko ëddee bu soobee saa borom mu jàngal ko. incha allah ku bëgg a faju hémorroïde muy seere. biir buy def ngelaw kur ballottement mhm. articulation yu metti ndiglu yu metti mhm. oom yuy tàng mhm. euh, di géex boo lekkee mu ne kekk sooy dem toilette air er rek di génn wala ngay dem mu mel ne ay bul mooy génn wala muy delloo sa awra nga mel ne luy tuuti yooyu yëpp boo ko soxlaa soo ñëwee ca kër ga suba ajjuma di nga ma fekk sama kër wala sangat ubbeeku mooy sangati sunguf yooyu bu werte bi bu weex bi ak bu xonq bi nga xam ne mooy faj rabak cat ak sangatul njare ak sangaayu ubbikook yooyu noonu daal mm. ku ko bëgg boo ñëwee ci kër ga suba àjjuma di nga ñu fa fekk danañ la seetal danañ la defal ñaan mm. maa ngi kër ga àjjuma cité sëñ su terminus mm. 48 wetu osan bi nekk sax mbaaw rek euh, boo ñëwee àjjuma dinañ ko fekk samdi dinañ fa nekk dimanche dinañ fa nekk altine mooy bis bi ñuy faj wàllu rab rab bi ci benn fan lañ koy faj da ngay ñëw ci bis bi. ne man la dama da woote ne damaa bëgg a faju rab. dañ la wax ni ngay def soo ñëwee ci bis bi ñu seet ko génne la rab bi ci bis bi nga dem dootu fa ñëwaat. noonu lañ koy defee. macha allah ku ci soxla. ak rab nu mu la mën a def nag. ak mm-hmm. bépp problème loolu la mën a indil soo ñëwee ci bis bi ñu dindi ko. di wax ku ci soxla da ngay woote ci numéro yooyu. Mm-hmm. talaata àllarba alxemes ñi ngi sit ñi ngi asalem 2 ginnaaw école Madieye Sall. mbooleem garab yi ñuy faje ak sangat yeeg yëpp rek mhm. am na mbuur ci ginnaaw osan bi ku ñuy wax aboo taal moo fa nekk mhm. soo wootee ci numéro boobu di nga dem ci moom di nga mën a am garabu émorite garabu ngóora garab yi ñu fajee yëpp am na Thiès kër gi jàkkaarloo ak kër Mbay Juuf euh, bu cees mhm. ñoo jàkkaarloo net ku fa dem tamit Assane ma nga fa am na Touba wetu kër sëñ Bass Abdou Khadir ca Talib Guédé ba am na Casamance wetu kër Ousmane Sonko. waaw ba boo ci dem ci boutique yooyu rek di ñu fekk. ñu am fa garab yooyu. garab yaa di wax ñëpp kon ñu ngi jéggulu sama mbokk yi sama xarit yi. Hmm. dellu siwaat nañ ci suñ programme liggéey ni mu daan demee. Hmm. même heure même jour. Ah. Euh, liñ paase woon liggéey la woon boo xam ne Sénégal ko soxla woon moo tax ñu suspendroon ko. Hmm. bari na ñu ma amaloon ay rendez-vous mujj nañu mënatuñ maa gis wala ñu ma waroon a jot téléphone mënuñu maa jot. ñu ngi leen di wax ne ñu ngi koy jéggulu léegi reprendre nañ liggéey bi normalement maa ngi nag nuyu mention très bien mhm. euh, Abdourahmane Diouf mhm. waaw Abdourahmane mënu maa wax ci moom fii tax taa bi jeex na mhm. mais suma lider la man waaw dama ko gëm te vraiment bu ñëwee ci Pastef tey jàppale leen maa ngi koy ñaan na dem jusqu'à bout parce que soxla nañ ko ñun voilà max moom boroom xam-xam la ñëpp ko soxla d'accord mais saak ngooñ lu mu doon jar temps <laughs> bugaan bugaan bugaan ay baykat bu xamatu xiin xam nga baykat bu wuteew jiwu ba yor ko da ngay xamu xiin bu rek nga xam ne xiin waaye boo toogee ba mu ne wérét après du baax. jërëjëf Cheikh Bara macha allah am na solo ñuy euh, wax di joxe numéro bi di 77 610 81 81 77 610 81 81 ngeen jox ko Cheikh Bara Ndiaye borom def gis seen aajo faju ci kàttan Sadio bu ma waxul lii du ma am du ma du ma du ma am lu ma neex. la deux. waaw incha allahu. le passation de service entre Diomaye Faye ak Macky Sall. waaw di wax nag bis boobu du bisu Diomaye. Mhm. bisu Macky Sall la. Mhm. moom moo ci liggéey bay wàcc. di ñaan askan wi. nañ ko sargal. nañ ko sargal waaw ci bis boobu. Mhm. ak nu mu mën a demee rek. nañ ko taaj dafa liggéey douze ans. mi ngi jeexal kum romb. kum fekk fa place boobu. ñëpp nañ ko sargal ba bis boobu mu xam ne mhm. ah vraiment ñun sax dañ ñoo ŋàññe ne ñun saaga ak xas rek lañ man mhm. ñu wan ko ne ko mën nañ bis nag bu ah. sargal nit jotee danañ ko sargal la ah. deux suuru Macky Sall la mhm. di ci sargal tamit bépp nit bu mu doon àndal moom waaw maanaam bépp nit boo xam ne ci 12 ans yi Macky Sall ànd na ak yow liggéey ak yow ak lu liggéey ba nu mu mën a demee rek ñun sénégalais yi ñu ngi lay sant te ñu ngi lay gërëm di gërëm Maodo Malick Mbaye aussi parce que bi ma gisee élection yi leer rek xam naa ne xalaatu Maodo ci biir de. parce que Sénégal Macky Sall dafa bari woon ñu ko jege woon. di ko wax loo xamante ne naka su noonu. mais ak lu mën a deme rek. toog na 12 ans. jeexal na. waaw nee na demut troisième mandat. Mm. organisé na ay élections. Mm. bis bi jot na bu Sénégal gépp génnoon Macky ñëwut. Mhm. bis bi du sotti comme menn moom la démocratie sox Sénégal soxla bis boobu mhm. bisam la nañ ko ko sargalale mhm. waaw maa ngi koy ñaan nag Sénégal yëpp waaw macha allah waaw loolu am na solo li nga wax noonu am na solo kon ñu ngi woo Sénégalais yëpp ña nga xamante ne lañ fa nekk nañ ko sargal tàcc ko euh, ñaanal ko mu daal euh, rafet parce que mm, lu rafet rek moo jar kii loolu rafet na trop macha allah ajaratu. Mhm. Eh, lenga yaa ngoow. ayca remercier naa la bu baax a baax Alaaji di remercier Cheikh Baara Ndiaye borom def gis ak Abo Tall borom Mbour Moussa maa ngi lay remercier Baye Ali ñoom Cheikhouna ak baay mbay yëpp ñu ngi leen di nuyu encore une fois di nuyu waat kat yi di ko remercier bu baax a baax ayca mi ngi noonu lii lañ leen indiloon ci télévision bi ngeen topp ñu ci euh, solution TV ñu ànd ak yéen ci Nepad musical. boutique solution ñoo leen doon may seen émission Taku Show tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam dañu am fayda dañu am fayda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 patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam dañu am fayda dañu am fayda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 patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam dañu am fayda dañu am fayda